mbokk yi ñu seetaan ci Bichri TV bi am na nii tey àndaat kenn ci jëwriñ yi waaye nag muy kenn ci waa commission culturelle ndax ku ne xam na ne ku wax bisub Sëñ Tuubaa surtout bisub xasida da nga tudd alxuraan ndax borom borom daa waxoon ne bustaani kitaabullaahi alxuraan mooy ab toolam kon ñoom ñu ñëwar wàll alxuraan ak yeneen xasida yi nga xam koy durus te xëy mënee su koo kuréel wala gudd yeneen guddi ci bis ci mel ay diwaan Noor Daarayni ay diwaanu quraani ya diwaan ramadaan ya yëpp ñi nga yor di ko durus kon kii mooy sëriñ Basiirou Diop moom dañ koy jël moom mu leeral ñu naka la durus bi doxee moom bokk ci kenn ci ñi xam te ñooy jëwriñ durus durus ci bis bi bisu xasida bi nga xam ne moo am tey fii ci Touba Denver fii ci fii ci Touba Denver kon sëñ sëñ Basiirou Diop ginnaaw bi la nuyoo di la ziar di la jox rek bu ko defee nga indi ñu ay tënk tuuti rek ci ci diggante bu gàtt rek ci durus naka ngeen la ak bi ñaa lan la maanaam ñaata kaa bi ngeen bëgg a jàng ak yi ngeen di jàng naka lay def kon sëñ Basiru kon nan la yow kàddu gi da bu ko defee ngeen ci mbokk tàlle ñu seetaan Bichri TV te ànd ñu bisu xasida bi fii ci Touba Denver Colorado bisimilah wa inni a'uudu bika wa zurriyataha min ñoo ngi ziare waa di ziare mboolem taal bi nga xam ne bàyyi nañ seen mboolem yi tey yëpp ñëw ci bisu xasida bi dën fa lépp rek ngir liggéeyal borom Tuubaa waaye awale ko ci mbindam mi kon loolu ku ci suñu borom defal tawfeex da ngaa war a sant bu ak ni dëkk bi xate yi tey bëri nit ñi bàyyi lépp nit ñi jugee fasandikoo ci dëkk ak ni Amérique toll ñi jugee New York ñi jugee ak ñi dëkk Colorado ñi jugee ba Atlanta fu ne doomu aadama jugee fa dikk fii ngir ci bis bi kon ginnaaw bi ñu jëlee sëñ jili mooy mooy jëwriñ bi daa baax rek nga jëmale ko ci alxuraan ji ak xaside yi nga xam te ne bu dee alxuraan ji wutaluñ ko ab bu dee xaside wutaluñ ko ab ndax du lim yëpp la jël bi ñu xëyee ba tey ñu ngi fiy door ak kaamil yi kaamil kaamil di wéy boobu ba tey téewut mi ngi mi ngi mi ngi dox te mënuñ wax ni nangam leen si jàng waaye boobu ba tey ñu ngi koy wéyal di dem xam naa bu suñu borom dogalee mu noppi danañ mën a xam lim bi yëpp ñaata la waaye liñ fi jàng ci noo daare ni bëri na liñ ci ay maraaxi bëri na liñ fi jàng ci ay bichir bëri na ak yeneen yim yoo lim yoo xam ne jot ñu ko bind loolu lépp rek ngir liggéeyal borom Tuubaa ndax suñ Tuubaa dafa jël dundam gépp def ko ci liggéey yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ak suñ borom subhaanahu wa taala ndax bu ne ilaa tawaalif yaqudullaaha asraar laa ilaaha illallaah te baat seere bi gën a màgg mooy laa ilaaha illallaah sëñ bi jël ko jël secret bi def ko ci bi kon ku suñu borom defal tawféex mbind moomu nga jël ko di ko si jaar ci liggéey suñu borom danga war sant ndax wajjaxal xuruufihi kulla ibada yaamalu ibada ibada ndax ku ne xam na ni julli suñu borom digle koor li suñu borom digle asaka kazalika ak mbooleem xibaadaat yëpp waaye suñ Tuubaa dafa ñaan suñu borom mu defal ko ci mbindam mii képp koo xam ne téye nga ko di ko jàng day mel ni yaa ngi def mbooleem xibaadaat yëpp kon nag alhamdulilah ba suñu borom dimbalee defal ñu xéewal defal ñu taysiir ba jubluñu te suñ tubaa daa waxoon wax joo xam ne wax ju am solo la dañu de bu dee li ma leen defal de defal naa ko sama xasida yi ndax su ma ko defoon ci course de am na ñu ko mën a jël bu ma ko defoon ci alxuraan am na ñu leen dàq alxuraan waaye nag képp koo xam ne bëgg nga ma te jublu ma de da nga jëm sama xasida yi te nee sama xasida yi de képp ku koy ko ci araf suñu borom musal na la ci sawara kon suñu borom defal tawféex liggéey boobu noonu nga nekk ci da ngaa war a sant yàlla bu baax a baax ndax li mu wax rek wax di xawaay ji lazina daamu fii xidmati wa hablahum araamu te liggéey bi gën a màgg ci mboolem liggéey di ko liggéey suñu Tuubaa mooy xasidaam yi ak alquran ndax ku ne xam na ni li sëñ bi def alquran nee koom bi gën a rëy kitaabun kariim karimin li karimin ba mu jeex waaw maam ni mu taggee ni alxuraan jël alxuraan teg ko ci kaw ndax léppam alxuraan la digal murid yi képp ku xëy di aju ci moom saa xëy da nga jàng alxuraan donte sax ñit isib la kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax xam naa duñ tee kàddu gi duñ bëri waaye alxuraan yi nañ xam ne mi ngi wëy xasida yi mi ngi wëy dañu xam ne boole boolu xasida do ñu ne ci boole USA yi ñëpp nos moo xam ni yor àllantaay yëpp xam naa ko bu ñu ko téye dañ koy jox seen jiile rek mu daal mu daal di wéyal bu amee leen looy kiyaar incha allah. kon xam naa ko dañu si àll seen jiir rek moom mi nga xam si ne moom la ñu jiite ci ci akasa waaw pour sëñ bi day mel ne bàyyi Basiru Diop waxal na ko ko sëñ Basiru ngërëm li noo gisee bisu xes de daaw bi durus bi ni mu tolloon ak bu ren bi euh, noo ko gisee xam naa yokkute gi moom foo ko toll paas na ko foo ko foo ko natt rek paas na bëgg nañ nga gën cee leeral gën cee gën gën cee yee murid yi xam si ne seetaan macha allah waaw kon buñ ko nattable bisu xasida daaw bi ak ren bi gis nañ ci ak yokkute bu baax a baax a baax ci ci durus bi ndax daaw bëri woon na lim yoo xam ne nii liñ fi jàngoo ci ñoo daan rek maraax bi rek buñ ko jëloon am na si yoo xamante ni daanaka sax binduñ ko woon biñ bëri yenn mbokki taalibe sax ñoo ñu leeralaat ni joxaat ñu lim ñu mën ñu bindaat ko nga xam ne am na ñoo xam ne ni jàng noonu di dem rek di ko defal addiye sëriñ bi ñoom duñ sàkku sax nga bind ko bu dee ci ñoo daan rek liñ ci bindoon it kasaalika ko bindoon lu mën a xew te maanaam moom liggéeyal Sëñ Tuubaa moom kanam rek la jëm bu jëm mukk ginnaaw képp ku ko jàpp te sellal ko te nekkee ko ni ko sëriñ bi bindee ndam rek nga ci am waaye doo ci mën a doo ci mës a doo a am ginnaaw kon loolu ñun dañ ciy sant bu baax a baax a baax ba moom bi mu ñu ci boolee moom sëriñ bi sant nañ baax ci teew gi ci teew gi ci teew ñaan suñu borom it ñu teelu ay at yu bëree bëree bëree barke borom Tuubaa xam ne daal xasida yi moom mooy lépp mooy lépp xam nga comme ni ko sëñ Muntaxa waxee sëñ Muntaxa da wax wax ju am solo dañ ni jaroon na ko day dem njàngi ba ne ar ñu jëbal sa lépp xasida yi kon jamono ju ne bi moom ko ñu ñu ñaan mbokki taalibe yëpp ñu si am yar gën jàng ñu bañ a wax gën koo waggar bi ñu toog sell lépp ñu def ko addiyee suñ Tuubaa loolu bu ñu ko defee rek danañ si am ndamu tey danañ ci ndamu ëllëg ndax ay njëriñ képp la mu njëriñ adduna ak njëriñu àllaaxira naa sëñ Basiru xam naa du la tëye da lay bàyyi rek liggéey ba yow ak sëñ euh, kon kooku ñu doon jël mooy sëriñ Basiru Diop di kenn ci waa commission culturelle bi waaye fekkoog sëñ Jili mi nga xam si ne moom xëy na lépp ci loxoom la tegee mu ànd koog waa New York gépp rek comme ni nga ko waxee xeste yi moom noonu rek la ndax borom yoom da koy da koy sëñ Tuubaa borom xeste yi bi mu koy bind da koo rek ngir ngir ngir tagg ci yonante waaye tagg ci bi dafa waxoon daxaani liqdaa mi nab yo saat si dëgg la gërëm loolu nag ñu ngi naan yàlla defal ko ñëpp ñu ko xadi bare ko ci basiru xam naa dañ lay bàyyi rek wajal inabati kal a'mali as-salihat li yaqud amali maanaam Sëriñ Tuubaa moom mbindam mbindam mi moom boo kawee mboolem lépp lépp lépp lépp te gërëmal gërëmal yàlla la gën a mbàgg la lay xëccal daal ki nga xam ne dafa jaar si jaamu suñu borom waaw wajal ridaaka akbar yi loolu daa daa daa doy lépp waaw te te damay faral di wax ni gis mbokk taalibe di jàng xasida ba mu yàgg mu yëngatu wala muy jooy nga jàpp ne neexit wi la te lépp loo gis ci àdduna lu mu neex neex rek dafa am yemuwaay fi mu nii ginaar li muy neex neex boo xiifut doo xam neexaay bi li muy neex neex soo marut doo xam caf ga gi ak leneen lu mën a doon waaye nag Sëriñ Tuubaa mbindam bi tani a xurufiya lahu la zaati bi laa nihaati bi adri zaati kon moom ay bànneex arafam bu toog ba ilaa abat waaw te loolu mu des na boo xamee ne yéen sara yéen di sara salaam du mës a doyal ci araf suñu Tuubaa loolu rek doy na sëkk waaw kon nag loolu dañ ciy sant dañ ciy sant bu baax a baax a baax a te te te dafa wax wax ji am xam nga suñu borom tamit inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima suñu borom génn rek lay ànd ak mbindeefam yi di ko def sëñ Tuubaa moom dafa dikk daa ni alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah li si salli nga xam ne dafa jiital ak sant yàlla alhamdulilah yi salli ala nabi mu ndaxaa mu salli sallallahu wa sallam alayhi wa fi laali wa sallam wala léegi nga daa di inna wa amara am laaka daa di sala alayhi zahiran bi zalika al xola kon ñun suñu yokkute ak suñu ndamal adduna ak alaxira mooy tagg yam bi sallallahu alayhi wa te tëggee ci mbindum sëñ Tuubaa bi du yem ak nga tëggee ko feneen moo tax ñu gën cee ndax suñu naan moo ñu lan daraay loolu xayraat yi waaw boo xoolee loolu rek da ngay xam ne di julli ci Yonent bi jaarale ko ci mbindum sëñ Tuubaa am na ak solo ju ci nekk lool nag di ñaar suñu borom defal ci tawfeex defal ci ndimbal ba liñ ci sàkku ñu amee ci lu kawe ak njot barke borom Tuubaa xasida yi waaw xasida daal amul yem waay amul amul am amul yem waay waaw yàlla na suñu borom gën ñu cee gën ñu cee gadaat barke borom Tuubaa xasida yi barke alhamdulilah kon jërëjëf sëñ Basiru jërëjëf sëñ Jili xam naa da leen bàyyi rek ngeen dem liggéey bi kon yéen ñi seetaan mbokk waa Bichri TV ñu waa ahlu xasida bi xam na fii lay amee tey ki ñu jëloon nii mooy sëñ Bassirou xam naa duñ ko téye dañ koy bàyyi rek bu ko defee moom mu ñu dellu yëg liggéey ànd ko sëñ moo jëriñu kër xam naa di kanam tuuti xaar sëñ Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom moo jëriñu waaw bu ko defee waaw bu ko defee waaw waaw fédération ak waa waa bi ñëpp ko seen mesure xam naa da lay bàyyi rek liggéey ba jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf sëñ Jili jërëjëf jërëjëf